na fi la ñu àndal jeudi bu jot ci lu jëm ci wàllu people actualité nationale na fi ñu bàyyi làkk euh, kàddu gi rek nga daal di dugg ci dossier dafa bëri dossier non pas vraiment euh, Seynabou euh, dañ koy tàmbalee ak actualité du people euh, national ñu koy ubbee ak Waly Ballago Seck Waly Ballago Seck nag dañ ko cité ci benn affaire de falsification de papier wu benn Range Rover bu nga xamante ni moom Ibou ture moo ko ko jaayoon moom Waly Ballago Seck looloo tax sax ñu yónnee ko convocation boobu ñibbisee ci tournée boobu mu nekk di amal jamono ji ca États-Unis dina wuy ji ñi nga xamante ñoom ñoo waa sûreté urbaine pour mu leeralal moo waral euh, falsification wu këyitu oto boobule ñu boole ko ci moom Waly Ballago Seck bu ñu jugee foofu ñëw ci Mignone Dia Mignone moom nag dafa génn démentir bépp rumeur bu nga xamante ni moom la ñuy dégg temps yi euh, bokk na ci boîte de bi nga xamante ni moom lañ ne dañ koo tuddee papaam moom Mignone Dia ñëwaat na ci euh, yooyu yëf ndax mu ngi xam ne ni la ñu tuddee papaam du benn yoon boîte de nuit centre socioculturel la bu nekk fële ca Parcelles Assainies Moussa Sy moo ko tuddee ki nga xamante ni moom moo di papaam ba ku nga xamante ni sax moo di Mansour Seck nekk bokk orchestre Dandelignolle moom am na benn salle bu ñu ko dippee que na nit yi arrêté message yi nga xamante ni moom la ñuy véhiculer ndax ku ne xamoon na ni papaam balaa mu doon génn àdduna dafa dëdd woon pratiquement lépp lu jëm ci wàllu xeet woowu ba ñu daal di koy sax seexal looloo waral moom mi ñoon la euh, trouvé nécessaire démentir li nga xamante ni moom moo di rumeur yooyu nga xamante ni bari woon na ay internet ne woon dafa benn boîte de nuit bu ñu tuddee papaam mu mel ni boîte de nuit centre socioculturel la bu nekk fële ca Parcelles Assainies ñu foofu ñëw ci Karim Wade Karim Wade nag dernièrement ñu nemmeeku ni bari ci ñu nga xamante ni mu leen di woo ñu ne fii ci réew mi ki mu mujjee woo nag moom moo di Wally Ballago Seck site bii di Dakar Post di xam Karim Wade eh, waxtaan mag Waly Ballago Seck benn xarit bu nga xamante ni moom lañ am en comment moo ko facilité jamono ji ñu ñu toll nag boobu eh, boobule di Dakar Post eh, moom dafa sampu laaj ngir sàkkoo xam lan moo waral Karim Wade woo Waly Ballago Seck téléphone ñu ñëw ci Pape Mbaye Pape Mbaye nag Euh, nekk euh, euh, góor jigéen salon les site internet toujours buy bu dëkk fële ca États-Unis moom nag bi Wally Seck di amal encore tournoom boobu foofu la ca États-Unis daf ko daal di offrir benn bagg en diamant boole ci it xaalis bu takkoo takku waaye itam di ca defaale ay yëfi jigéen yu doy waar ba site internet yi daal di recouper partie boobu ci soirée le di xam ne ni Wally Seck moom ba tey xeetu nit ñooñu ñu koy wër ak teral may may xaalis xaalis ak def yëf ñu jógee foofu ñëw ci ñaari doomi bokkande yi nga xamante ñoom eh, ci seen page Facebook dañoo daal di eh, ni elles ont belle ci attentat yi nga xamante moom moo xamle information bi ndax ñoom nee eh, ba yëf ya commencé dañoo daal di woon génn pour manifester ak anglais yi nga xamante ñoom ñoo nekkoon foofu bi camion bi di ñëw seen kanam la moom doomam ju mag ji di xamle ni jour boobu moom moo gënoon gaaw ki nga xamante ni moom moo di Usain Bolt révolte heureusement ñoom elles s'en sont sorties saines ci euh, Mouhamed Niang doon amal deuxième euh, sant Serigne Saliou bi nga xamante ni defoon na ko daaw doon amal euh, ñaareelu édition am fële ca Grand Théâtre gannaaw ba nga xamante ni seen guide religieux di Cheikh Béthio Thioune interdiroon na ko moom Mouhamed n'empêche il a fait le plein au Grand Théâtre mu nekk nag lu nga xamante bett nañu bëri seen bu ndax dañu jàppoon ni gannaaw ba seen cheikh moom moo yor seen ndigal ci lépp pratiquement bu leen euh, du ñu dem waaye ci image yi nga xamante ni moom la site internet yu bëree bëri le dinay euh, woy pratiquement ak 8000 personnes yu nekkoon ci ginnaawam di ko aaw waaye itam saal ba na dell ba ku ne amoo foo teg sa tànk ñu ñëw ci Ahmed Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass moom itam euh, dañ ko yonne euh, plainte de la part des soninke Ahmed Khalifa Niass ci micro RFI nekk benn rajo internationale moom Ahmed Khalifa Niass dafa daal di accusé ni mosquée soninke yi ñoom ñooy former ay terroristes bëgg leen dugal fii ci réew mi renseignements généraux yi nag gannaaw ba ñu démentir bépp xeetu Euh, information boobu nga xamante ni Ahmed Khalifa Niass jox na joxe na ko euh, Soninke ca boppam ñoom ñoo ñëwaat en retour daal di porter plainte ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Khalifa ndax jàpp nañ ni la mu leen di jiiñ dara du ci dëgg waaye itam euh, gis ñu lan moo waral mu yeb leen ba woote ca rajo bu toll ni RFI naan ñoom dañuy defar ay terroriste bu dee moom xam na nu ñuy defaree terroriste na leen wax nu mu gën a gaawee waaye itam na wuy ji yoon nu mu gën gaawee mu mel ni Soninke njaga dañoo ànd ak xadar lool li nga xamante ni moom lañ leen jiiñ mu nekk lu métti nag lu lu lii bokk na ci li gën a def faar sur les informations yi nekk ci réseaux sociaux yi ndax ñu bari euh, gisuñul fan la ko euh, kii kooku le di Ahmed Khalifa Niass euh, wékk ñu ñëw ci El Hadj Seydou Diop El Hadj Seydou Diop na bu mooy kooku nga xamante ni mooy sénégale ba nekkoon fële ca États-Unis te ko doon jiiñ ne moom moo rey jabaram ak doomam alors ci ay révélation nag yu xaw a doy waar yu enquête bi joxe sax lay wax moom El Hadj Seydou Diop jabaram moo ko rey finalement waaye ki nga xamante ni moom moo di doom ji d'après enquête bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal fële ci États-Unis toujours sàkkuwul woon benn yoon rey doomam au contraire moom élage Hadj Seydou Nour Diop dafa daal dee daanu bi mu reyee jabar ji dafa ànd ak jabar ji ñu daal dee daanu seen kaw euh, doom te seen kaw doom ji jamono jooju euh, bébé la woon doom ji daal dee suffoqué benn erreur rek la def mooy ba ñu daanoo ca kawam doom ji deewul automatiquement pour yi ñu jàppale doom ji waaye daf ko seetaan ba xale ba euh, des ci ay loxoom noonu la leen fotowee dugal leen euh, fi nga xamante ni moom moo di compte Facebook jamono ji nag ñu ngi ba tey ci enquête bi nga xamante ni moom moo jëm ci ci coowal El Hadj Seydou Diop moom ñu jóge foofu dem ca ah. ñu de États-Unis la ñuy des ba tey sax Sénégal. waaye mhm. nag pays de l'oncle Sam neex na. Mhm. Mhm. waa léegi Pape Diouf ñu nga fa. Euh, site bi di euh, média sn point net moom moo samp laaj bëgg a euh, sàkkoo xam ndax coïncidence wala concurrence ndax jàpp nañ ni depuis lu tolloog fukki fan moom Pape Diouf ma nga foofu la ci États-Unis di fa amal pratiquement ay festival yu bëree bëri yu mu bokkoo liggéey ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di New African Production ba mu fa defee fukki fan la ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck daal di jëli vol moom itam fekk ji ko Euh, foofu le ca États-Unis moom itam di fa liggéey bu am solo samedi nag ñu war a bokk ñoom ñaar fi nga xamante ni moom la ñuy tëgg ca États-Unis muy même euh, quartier ba euh, site internet yi nag samp laa ngir sax koo xam coïncidence wala concurrence est-ce que dina dinañu leen seen ci ba même seen pour ñu mën a bégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di diaspora ba fa ne yooyu yëpp dinañ ci am lu ñu leer euh, incha allah bu date boobu noonu ñëwee. ñu des États-Unis ba tey ak Pape Diouf moom ndax Pape Diouf dafa jouer devant 27000 personnes njaga ci benn festival bu nga xamante ni euh, doon na ko amal samedi dernier mu nekk lu doy waar ba site internet yu bari yu international yi sax laay wax ñoom dañ ko daal di reprendre tubaab ay tubaab rek nag euh, ñoo fa nekkoon 27000 personnes encore une fois ba ñoom ña nga xamante ni ñoo teewoon foofu sax dañ doon sàkku ci Pape Diouf mu dolli leen euh, euh, spectacle bi mu waaw moom moom <laughs> biis wax mu liisal moom Pape Diouf nag euh, biisul biis bu rëy ndax daf leen ñamal rek quinze minutes ba noonu la daal di keneen ki nga xamante ni moom moo waroon jouer tellement les les les les les les américains sax laay wax était très enthousiaste ci eh, gis ko moom ci kaw eh, seen euh, ñu ñëw ci eh, Cheikh Lo mu mel ni musique sénégalaise bi jamono ji ñu toll njëgam mu ngi nekk di exporté wu ndax à l'image de Pape Diouf keneen kooku la di El Hadj Diouf El Hadj Diouf nekk sénégalais boobu dévolué fële ca Canada moom itam mu ngi amal tournée bu am solo foofule ca Canada pour jéem a promouvoir albumam boobu la di melokaan il joue devant plus de dix mille télé naka laa ko mën a waxee spectateurs Ndour mu nekk lu doy waar Fada Freddy himself moom itam euh, jamono ji ñu toll mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi amal ay ay ay ay sorties yu doy waar euh, pas plus tard que ay force tranquille lañ pas mm-hmm. plus tard que euh, semaine ca Espagne su ma juumul il a il a joué devant 7000 personnes mu nekk lu nga xamante ni nii Ndiaga c'est c'est c'est vraiment beau pour la musique sénégalaise yàlla na sa sax ki ci mujj nag ca liste boobu moom moo di Cheikh Ndigal Lo Cheikh Ndigal Lo nag dafa am prix spécial fële ca festival la más del music, musicas. Ouais, les Espagnols, ils, ils prononcent La mar dal musicas. ok moom Cheikh Ndigal Lo nag dafa am mësuñu ko li nga xamante ni moom moo di euh, euh, euh, prix bu spécial ñu koy wax good job ah ñu ñëw ci un café avec un café avec nag moom Dj Boubs gannaaw bu mu génnee xam ne ni jamono ji ñu ngi nekk ci tournage yu long métrage bi acteurs yëpp booloo nañ dinañ jouer et que bientôt dinañ ko retrouver sur le petit écran site bële di Sénépeople moom indiwaan na ci ay leeral ndax mu ngi xam ne ni c'est vrai que acteurs yëpp ñoom bi nga xamante ni de temps a pour lancer euh, saison trois bi waaye ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di acteurs yi ñu fayu seen xaalis ba tey dañoo xamal euh, di producteur exécutif u série boobu ne euh, bu leen fayul seen xaalis du ñu yeggali 30 épisodes yi mujj parce que ñoom comme saison 2 bi ni meloon dañ def long métrage après dolli ci yeneen 30 épisodes bii paa nag nee nañ dinañ ko jouer li nga xamante ni moom moo di long waaye bu leen fayul li mu leen yoreel euh, duñu ko euh, jouer la nga xamante ni moom moo di la des ca film bo mu mel ni pon dama wureegul njaga ci euh, tournage u un café avec ak Cheikh Yérim Seck ak ñi nga xamante ni ñoom la embauché woon pour ñu def yëf yi beneen coow bu fi amoon jamono ji yëpp mooy cinq xale yu góor yi nga xamante ni ñoom ñoo for benn vidéo à titre obscène sax laay wax daal di koy eh, tas ci réew mi ñoom nag eh, jugé nañ leen eh, dem ba juge bi teg na leen daanu six mois wu daan daan na leen six mois yu nga xamante ni danañ ci tëdd weerub casso ñoom si xale góor yi nga xamante ni ñoom ñu jël vidéo bi véhiculé ko ci réew mi ñu jeexalee ko nag ak beneen vidéo bu nga xamante ni jamono ji day na waar lool ni mu nekkee di def buzz sur les réseaux sociaux mooy Eh, ñenn xale jigéen yu nga xamante ni dañuy jaay seen bopp fële ca Malika na nga xamante ni noonu la police su eh, Sénégal bi nekkee di def liggéey bu doy waar ba daal di leen di eh, jàpp ñu wan leen ni nga xamante ni noonu la ñu defee ratissage bi ci lieu boobu nga xamante ni kaka moom sax dafa xaw a am âge bu bu takko takku ñu Alioune ñu seetaan lii nga xamante ni moom moo xewoon fële ca Malika ñëwaat ci ci plateau bi ana këyitu këyitu oto bi ana këyitu góor bi ah ana këyit yi ana say këyit ana këyitu góor gi ah góor waaw mais foofu nag yéen lépp dañuy wax rek. déedéet yow laa wax sa kayit di la permettre nga ubbi lii laa wax. waaye kayit yi. mu ngi kër ga. Ah, eh. déedéet kayit bi nga xam ne moo la permettre nga ubbi lii laa wax ana kayit yi. mu ngi kër ga. waaw ah, kay léegi dañuy dem commissariat après sama kër indi la kër ga. te eh, eh, yeneen chambre yi am na eh taxawal bi eh kaay yeneen chambre yi foofu la ñu nekk eh nañ loo xanaa ni. eh eh eh ñu bëri ñu dem. kaa leen eh kaa leen. góor gi kaay. taxawal di kaa leen taxaw nii. eh ani yéen saa bu ñu kaay. kaay. mer mer yàlla gañ. eh ba gañ waay. Adja. eh eh kaay kaay kaay. kaay. kaay. kaay. dafa am ku ma àndal kaay jaar sama bagage yi laa jël jàpp ci rek sa jëkkër Parfait, donne un parfait dans le boulot. Un parfait. Là, le parfait dans le boulot, là. Assez bien. Vous prenez Dakar. Prenez le boulot. waaw ñu ci ci palanteer bi néeg bi ñu nekkoon palanteer bi toog sama yére dañ ko ko. waaw dinaa ko sama yére boobu. comité bi ku ñu nekk gis nga ko maa ngi ko wekk ko def. man laa Adama waaw léegi yéegal ku koy yéegal. gisee am man laa Adama ah dégg nga. ñun dañu ñoo jàpp ñu ngi nii de. waaw yéegal. voilà bu ñoo ko seetaanandoo ci ay xibaar ñu ngi ñuy xamal ni euh, vidéo bi sax nekk na lu nga xamante ni datewul d'aujourd'hui xëy na euh, dafa am yeneen scandale yu nga xamante ni euh, dafa similaire looloo waral ñu daal di koy mise à ñu ciy rafetlu bu baax liggéeyu jàmbaar yi mu nekk benn pratiquement ay chroniques yu nga xamante ni day daw fële ca RDV ñu leen di nuyu ñoom ñëpp nag di